marketing laay euh, moom lañ doon euh, doon defal benn euh, agence de voyage mais sëy boobu noonu amul daanaka daal laay mbir mi fake news la daal si buñ ko mënee wax. ah mooy bi ma gis man nag man nag kooku laa define woon moo takk ko mu. déedéet damaa define woon ba moo kooku moo takk ko mu ndaw mais nag. kalaa la ñu wax wa kalaa mais tax ma nit ñi tamit bala balaa ñuy ki kalaa moom moo bokkoon si série yaay 2 point 0. ah ok léegi nag nit ñi ñoom ñoo war a xool balaa. balaa balaa balaa ñuy balaa ñuy kii nu mhm. balaa ñuy euh, euh, wax benn affaire boo xamante ni danoo war a am lu leer. dëgg la li li waa ji daan soit pili clair. Mhm. maanaam tey balaa ñu <laughs> soit pili clair. <laughs> balaa ñuy wax benn affaire. Mhm. dafa war a leer ci seeni bët tey jii nit ñi mën na ni publicité euh, tey ñu koy jaawale affaire yooyu noonu. mais yooyu yëpp garaaw. te mais tamit wax nan ni lii amul quoi. parce que hmm. tamit moom comme que ñoom. xam nañ ne amul génn na def na vidéo non c'est que laay euh, boo gisee affaire bi mu jëloon benn kii bi. kon boog benn ampleur bi. Euh, parce mm. que dañoo gis ni moom Jules César dugg na euh, euh, si biir Instagram xam xam nga partage ko foofu noonu laay nit ñi di ko félicité ñu gis ne aussi magam bu góor tamit woo na ko xam nga di ko ci félicité ba mu koy wax yëpp lan moo waraloon làkkatu bi xam nga bañ takk sëy bi simplal ko def ko lu gaaw gaaw gaaw ba ba pare. encore démb euh, ci guddi moom Jules César defaat encore vidéo lancé ko ni affaire bi nekkul mariage mais euh, fake news la parce que tey euh, man bi ma yeewoo maa ngi koy gis laaj si suñu ay naataango waa fi ñu Dakar ñoom ñu ñoom ñu génn def si sortie naan waa mariage bi amul ñoom dañ doon def benn marketing ak benn agence de voyage laay mu nekkoon tournée bi nga xamante ne parce que parce que laay ñoom ñaar seen photo boo ko gisee nekk nekkul fii sax Sénégal ñu ngi defee fi nga xamante moom mooy Maroc yoon léegi nag tey nag laay bu borom bëti koo def nii mais est ce que suba bu waxaatee aussi est ce ko gëm waaw xam nga xam bu ko comme tey bu ko yaatee encore daan am soxna est suba nit ko gëm bu fekkee dafa wax am soxna mhm. tey mu affaire yi ko defee noonu moom moo waroon a libéré bu mhm. yàgg parce que mhm. tamit gars tamit mais bi dox na de waaw dañ loolu yéene rek waaw mais yéene rek xam nga moom bu la yéenee jàmm ak mm-hmm. yéene la lu baax mm-hmm. day defee ni loolu loolu lu am la mais moom moo waroon a libéré rek gars rek ni leen publicité la mm-hmm. moom ko libéré leen moom moo ko waroon teel def tey jii ni ni mu defee kii nii ba gars yi def ay dugal ko si tiktok toktokam tiktokam xaw ma Instagram waaw Instagram waaw léegi soit tiktok soit Instagram soit Facebook mu bind ci daat ne lii dañ doon publicité voilà su ko defee ñëpp libéré loolu mooy yoon quoi hmm. mais waaye xam nga xëy laay xam nga site yëpp duggandoo ko ñëpp di ko heureux maintenant ñëpp aussi di ko félicité laay ko ba si ñun mii ñun mii démb rek démb ñun mii ñaan nañ démb ñaanal naa waaw ñaanal nañ ko xam nga pour man <laughs> ma ñëw naan leen loolu lu baax la bu ñu gisantee seen biir bay takkante man de toj naa fi yow maa nañ takkante eh, seen man mi ay waaye ah, man toj daal Pa daal ah ñu def moom dal na de Pa Assane yow gaa nu mu demee nii yow gaynde ah Pa Assane Pa paasan ñun ñun ñun démb ñaanal la xëy na tamit day bëgg a am oh, day bëgg a kii incha allah yàlla na ko yàlla yàlla mm-hmm. defal jàmm rek euh, léegi daal laay pour leeral askan bi daal nañu xam ne Pa Assane ak Kala ñoom ñaar sëyuñu dañ doon def benn euh, marketing si benn agence de voyage looloo waraloon mooy photo bi nga xamante ne ni moom leen doon gis muy circuler ku nekk naan heureux ménage heureux ménage euh, daanaka daal affaire daal fake news la benn sëy amul seen diggante ñoom ñaa ñooñu noonu na nekk nag ñoo leen ko jox fii nii ah en euh, exclusivité mm-hmm. sur Tacko TV leeru xol yi laay buñu ci jógee dañuy tàbbi ak ki nga xamante mooy Waly Balago Seck Waly Balago Seck na dem na dafa dem seeti ki nga xamante ne moom Cheikh Amar biir këram yëkkati nag ay kàddu jëmale ko si moom ah, ndax mu ngi koy naan ci ay kàddam ne ko man yaay sama baay yaay sama xarit ba bay Cheikh Amar aussi yëkkati encore kàddu laay di rafetlu jëf jooju bi nga